Euh, siyaar ñëpp moo xam sénégalais yi ñu seetaan fii ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew bu ñu liimee juum diaspora bi dañuy bàyyi xel bu baax a baax di nuyu ñëpp encore une fois di ziar ñëpp tey ñu ngi ñëw seet si koo xamante ni ñëpp ràññe nañ ko euh, sama xarit la daf ma réeroon waaye aatu ma réeroon feeñaat na nee naa ko ñun ñaar ñëpp dañoo réeroon waaye euh, dañuy déggante si jàmm ak salaam ñu koy ñaanal jàmm sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ñu ngi koy ziar bu baax a baax. bu baax a baax encore di ko delloo wàccuwaayam sëñ Babacar maa ngi lay nuyu su ma ne Serigne Cissé moom mooy Serigne Babacar. Euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin sant nañu yàlla julli nañ ci sang-sang yi muy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di baalo àq ñëpp di baal ñëpp it waaye rawatina euh, waa Sénégal. ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal yàlla waaye di ko jaaree ci sama soppe bopp ki nga xam ne bokk nañ luñ mantu séddoo muy seexul xalifa sëriñ Babacar Sy di Pape Maguette mi nga xam ne moo nekk ci sama wet ñu fas yéene seq waxtaan ñoo ngi ñaan yàlla nag ci dara ji sëriñ kër si li nuy waxtaanee yàlla ñu ci yàlla defal ndam taw tawfiix ak sutura te bañ ci wax luy indi benn wax ci réew mi ci dara ji sëriñ Babacar kër si allah sëriñ Cissé ñu ngi jëm ci loo xamante ni. nit ñi am nañ ci tiitaange am nañ ci njàkkare muy ci élection euh, locale yi ñu jëm muy wàllu maire yi mm-hmm. waaye ci jamono ji euh, dañuy ràññee ne fitna dafay yeeweeku toujours te mm-hmm. surtout li ñu nga xam ne moom la ñu tuddee violence mm-hmm. euh, ñu ci joxañ baaraami tuuma jeunes yi ak tamit ci làngum politique yi ñu gis ne fitna bi dafa bari ci réew mi lool lool lool lool lu sabab lu ñu mel li sabab lu ñu mel Pa Maguette du lenn mm. mooy ne jamono dafa yëngatu bi jamono yëngoo nag bu dee am na lenn ñu ma ciy waxtaan ak mooy ndaw ñi ndax jamono ji gars yi dañuy jëfandikoo yenn façon mystique yoo xam ne fii réew mi toll képp ku ci àndut ak sa xel xooloo fi nga visé fi nga jëm man nga ñàkk sa bakkan ci ñàkk fayda rawatina élection euh, yi ñu jëm muy élection yoo xam ne bari na burwi ci bari bruit gi nag bu ma amee ñenn ñu ma ciy conseil ndax politique yi li yi li ñu nekk kenn mënu leen koo tee def waaye lay njëlbeen la mooy ndaw ñi nga xam ne ñoo ci nekk te di ci topp nanu xam ne boromi yaakaar lanu te doom bu juddoo wéyjur wa danaan noppalu naa noppalu naa daje nag mooy lenn ëllëg jamono dox ba li sa baay doon yenu nga yenu ko kon looy dox lu ne war na doon lu leer looy seeti war na doon lu leer looy waxit war na doon lu leer kon yow mi topp politicien bi mën nga koo supporter ci mboole mi façon waaye violence ku la ci woo bul ko wuyu ji ndax yow ëllëg yaay relève réew mi te élection yi dafa doon élection yoo xam ne day yëngatu day yëngatu ndax ni mu déparé bu déparé lama ma ca waxoon rek laa cay wax élection yi yëngatu yi mu yëngatu yow mi nekk ndaw te xam li nga bëgg bul ca dugg ndax politiciens yi ñuy defante ñoom ci seen biir bàyyi leen ñu defante ko am nga droit nag supporter que la gënal waaye élection yi ndax dama yàggu dara daa deux mois ci ginnaaw ma leen di wax ne maa ngi gis benn façon mystique boo xam ne ñu koy jëfandikoo ci dëkk bi dem na ba ndaw ñu xabtalu nañ di dee ci ñàkk fayda te boo buñ ne lu leen rey mënoo ko xam alaaj pa màgget sëñ Cissé ñan ñooy jëfandikoo mystique yooyu noonu jam jam jamono Sonko Macky Sall dañoo nekk ci lu ñu ne gars yi ne coow li coow li Serigne Cissé leen lii coow li faw mu am ci biir am gi nag mooy ne xas nañu ko def te li nu def faw ñu dajee te bu nu dajee it faaw dajee bi am coow li doo ko mën a jeex ndax jëf nañ ko ba pare ci yenn ci xeetu mystique boo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ci ay ñoo xam ne fudu la ñuy jëfandikoo mooy xam-xam bu ñuul boo xam ne def nañ ko xabtal ndaw ñi ba ndaw di jaxasook ay policier di dajeanteeg ñoom di di di di di di di di xeex ak ñoom xam nga ne kooka nekkatut nekkatut nekkatut nekkatut ci li ko gënal ah, ndax ndax bi jamonoy baax hmm. buñ la daan wax ne takk der a ñëw wala takk der ngi taxaw ci sa buntu kër da nga daan patiner di am di am problème jamono léegi nag gars yi dañuy jëfandikoo yenn yoo xam ne ci ñaari camp yëpp jamono joojoo ñu koy jëfandikoo ci ay xam-xam yoo xam ne def nañ ko ci dëkk bi ngir lan xabtal nañu ndaw ñi ba ndaw ñi àndatuñu ak seenu courage luñ gis ñi mën nañ koy jëli baatu sacrifice boo ko déggee duhul looy dem naan pa màgget jox naa la euh, seex pour nga defal ma ko nangam mbir la mu ñuy teg moo xam ne ku ci woyof boppu dem ci lii mooy sacrifice kon loolu moo sabab li xew mois de mars ba fukk ak ñeent ñaar. mooy moo koy sabab. te toujours ba politiciens yi di génn. yow mi amul gàllaaj jaxasoo ci seen biir. boo deful doucement cuy ñàkk fay day nga ñàkk sa bakkan ay bal nangam ak yooyu yëpp. sacrifice yi ngay dégg ci noonu rek lañ koy jëlee ba mu jeex. kon booy ànd ak wu ndombal tànk ci ku mën a doon. ak yow mi ku mën a doon rek. na nga fexe ñàkk sa bopp. boo ñàggee sa bopp. pa màgget lu mën a xew ci jamono da nga ciy mucc. mais sacrifice yooyu ngay wax. Mm-hmm. dañuy faral di gis des fois ay cortège mm-hmm. politicien mm-hmm. que sa soit mu nekk ci opposition bi wala boog ñi nekk ci nguur lu ci bëri ñuy def ay accident ba nit di ci ñàkk bakkanam est-ce que mën na jàpp ne sacrifice mën na am foofu. mën na fa am ndax euh, gis nga kortu da ngay dégg ne diw dañ koo sànni kortu kortu duwul lu ñuy diir dinaan la ko di la ko jam fenn lay ne. ñu tegal ko kenn benn nga romb ko traversé ko ñu ne la dëgg nga yëfi jàmbur. ñaare kortu dëgg buñ koy liggéey ci inde inde yi tabax yi waxuma nag inde yii. inde yii inde tabax yi. si lañ koy jaarale liggéey ko teg ko foo ko gis boo ko moytu boo ko dëggee am góom boo xam ne robaale lay doon ci sa jëmm. inde mooy mooy nu muy mel fer la wala aluminium bi. ban lay doon. inde tabax mooy ban jamono ji waa Ndakaaru. Mm. génération bari xamuñu ko inde yii arminium bi gars yi di defeer la ñu xam waaye inde bi ma lay wax mooy inde bii ma wax la mooy indee tabax bi ban bi nga xam ne si lañ koy jaarale def ko teg ko ci mooy boo wanee ñu naan la selebe yoon bul fa jaar yu mel noonu la ñaari pot lamp yi taxaw fa jaar yu mel noonu la ndax saar yooyu dañ ko fay denc. man gëmuma gëmuma ay selebe yoon ak ñaari pot lamp man damay ñëw rek romb man. gëm ko tey. Ah, tey moom gëm naa ko. gëm ko tey ndax selebe yoon dafa bëri lu fay xew. Mm. ñaari en général léegoo li nga génn ci àngal si fekk ci àngal ba àngal ba tooy xep sangal lañ lay digal ne fexeel digg selebe yoon ba na nga fa taxaw sangu fa na nit ñi di rombee ku ñëwit boo loolu nag ñaari boo ko gisee lii wàllu mystique lay doon boo xam ne pour wàllu samp la pour wàllu samp la buñ la bëggee samp lu mel ni selebe yoon ñu del wala wutal suufu selebe yoon def ca selebe yoon dafa bari luñ fay def moo tax ñaari en général rek ñëw rek ne xaas ci selebe yoon doxul waaye ndaw ñi nanu baxel élection yii di ñëw hmm. nanu gën a euh, moytu hmm. gën a ñàkk seen bopp te xam ne ñoom ñooy ëllëg hmm. ñoom ñooy ëllëg ndax buñ ko defu rek ñàkk seen bakkan ci ñàkk fayda ndax dana yëngu daal nit ñi nañ ci loolu de politique moom wax naan dana yëngu sax du xam-xam ci yëngu la jëm dana yëngu loolu du pédagogie du xam-xam ndax ci yëngu la jëm waaye na ndaw ñi ñekk seen bopp rek looloo ci am solo waaye yëngu gi moom ku ne xam ne ne Pape Maguette bu ma la ko waxee xam nga ne dina dina yëngu bu ma la ko waxul xam nga ne dina yëngu kon li ma am ci kàddu goo xam ne eh, war naa ko baaxee ni ñi mooy ne nañ ndaw ñi baqel seen bopp ku ne am nga droit wu supporter ka nga xam ne bëgg nga am nga yéene li nga bëgg mënal na la ko nga ànd ci ak moom na nga bàyyi xel sa bopp mu ngoog nag mu ngoog nag foofu ay wax ja pamage li nga wax nii rek la ñagu ca bañ lay yóbbu ñu ngi lay jaajëfal eh, Serigne Cissé mu sëñ Babacar yàlla na yàlla guddal fan bi. amiin xam-xam bi mën-mën bi ta ngeen taxaw réew mi. amiin bi jaay rasulilah salaay salaam Pa Maguette ak mboolem waa Sénégal ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal. di leen ñaanal yàlla tawféex ak sutura ci barke yonent bi.